ok alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain insha allah ñu ngi dalaat sunu téere bi di riyaadu saalihiin ñu ngi war a jël tey juróom-ñetteelu bunt bi ci téere bi ñu tudde ko baabul istiqaama baabul istiqaama di juróom-ñetteelu buntu ci téere bi fi muy waxe ne qaala allahu taala fastaqim kama umirta insha allah kon ñu déglu njàngin mi doogo dem ci leeral bi insha allah
قال الله تعالى فاستقم كما امرت سوره هود وقال تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سورة فصلت وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون سورة الأحقاف عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم
dafa mel ne téere yi xaw na wuute de waaw ala kulli xaal ci liñ jotee jàng ah déet non non non non noonu la mu wane waaw naam kon li nga xamee ne nii mooy bunt bi ñuy jàng mooy baabul istiqaama day wax ne qaala allahu taala fastaqim kama umirta sunu boroom mu ne na nga jub comme ni ma la ko sante yow yonent bi gannaaw ba mu ne inna allazina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla taxaafu wala taxzanu ñooñu de malaaka yi dañuy wàcc ci ñoom di leen wax bu leen tiit te bu leen tiisu wa abshiru bil jannati allati kuntum tuaduun waaye na ngeen bége ci ajjana ji nga xam ne nekkoon nañ leen di leen ko dig nahnu awliyaa'ukum fi lxayaati dunia wa fi l axira ñun ñooy seen féete ci dunduk àdduna ak dunduk alaxira yépp walakum fiha ma tashtahi anfusukum dana leen faññeel lépp loo xam ne dana ko xemmem seen bakkan yi walakum fiha ma taddaun dana leen faññeel lépp loo xam ne yéen a ngi koy woo jëme ca nuzulan min gafurin rahim loolu day nekk wàccuwaay jóge ci kiy jéggale ca am yërmande ji ca yërëmaate suñu borom waxaayit waxaatit inna allazina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu ñi nga xam ne dañ ne yàllaay sunu boroom gannaaw ba ñu jub fala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ñooñu duñuy tiit duñu am lu ñuy tiit te duñu am lu ñuy tiisu ulaika asxaabul janna ñooñu day ñooñu àjjana xaalidiina fiha dañu fay sax ba faw jazaan bima kaanu yaamaluun loolu nekk pay ca lañ nekkoon di ko jëf amma bu dee ci xadis bi mu ne kii nga xam ne mooy abi amru ca mooy sufyaan ibnu abdallah qaal qultu ya rasulullah dama ne ay mi yàlla yónni qul lii fi lislaam qawlan laa asalu ahadan gayrak laa asalu anhu ahadan gayrak nang ma wax ci lislaam kàddu goo xam ne duma dem ci keneen di ko laaj loolu lu muy firi qaala qul amantu billahi summa staqim mu ne ma da ngay wax man day gëm naa ci yàlla gannaaw ba na nga daal di jub ca yoonu yàlla boobee mbokk li la ñuy tuddee al istiqaama dañuy gis ne moom mooy sax ci diine ji da ngay gis mbokk boobu di docteur Ahmed Lo lii di mbooloo mi mu jiite ci wàllu jàng ak yu demee noonu mi ngi ko tuddee daarul istiqaama ca mooy fexe jàngale nu ñuy def ba am istiqaama boobu. gis nañu ne sunu borom subhaanahu wa taala dafa wax ak sunu borom ne ko jubal comme ni ma la ko sante loolee yenn borom xam-xam yi dañ ne yonent bi alayhi salaam dañ ne li ma bijjaawloo mooy suratu Huud. am na ca ñoom ñu ne aaye bi bokk na ca la ko bi jawloo mooy yàlla da koo digal mbir yu bari tere ko mbir yu bari ba pare nag na ko jubal comme ni ma la ko sante loolu nekk lu diis lu màgg loolu tamit alhamdulillah lu dul ne sunu boroom woyefal na ko ci beneen aaya sunu boroom mu ne fattaqullaha mastataatum ragal leen yàlla seen kemtalal kattan te mooy sax ci li yàlla bind sans faute loolee da ngay gis ne doomu aadama mënut loolu loolu ñi ko man mooy malaaka yi mais doomu aadama mënut loolu loolu tax sunu borom dabantal ko ne ragal leen yàlla seen kemtalal kattan waaye nag da nga ci def sa kemtalal kattan léegi nag li sunu borom teg ci loolu. mooy joxoñ mboole mi jullit ne ñi nga xam ne dañ ne ñun yàlla mooy sunu boroom gannaaw ba ñu daal di jub ca yoonu yàlla boobee na am yàlla mooy sunu boroom bokkaale wuñ ko dara gannaaw ba ñu daal di jub loolu mbokk jub googu sunu boroom di wax summa staqaamu mënut a nekk lu dul day jiitu nga xam yoon mi ngay jaar aw yoon mënoo caa sax doo ko teggi lu dul nga xam yoon wa loolu it moo tax ba njëlbeenu jéego ci lislaam mooy jéem a jàng yoonu yàlla ba xam ndigal yi xam tere yi gannaaw ba nag nga doogo jéem li ñuy tudde al istiqaama sunu borom nee na ñu mel nii malaaka yi dañuy wàcc ci ñoom te tanazzalu ay dañuy wàcc ak wàcc wàcc ci kaw wàcc ci di leen wax naan bu leen ragal ca bu leen tiisu bég leen àjjana mooy seen wàccuwaay ca mooy àjjana ji ñu leen doon dig loolu tax waa ji nga xam ne dafa deeyaale sax ci yoonu yàlla fi muy sukkuraate malaaka yërmande yi ñooy ñëw di ko dalal heure boo xamee ne faatu na malaaka yërmande yooyu ñooy jël ak rooxam yéege ko asamaan mboole bi malaaka yi ñu romb di ko félicité di ko sargal heure bu génnee bàmmeel malaaka yooyu ñuy ñëwaat ci moom di ko bégal loolee kon ay étape ci kaw étape tatanazzalu alayhim al malaika di leen wax bu leen tiir ca bu leen ragal ñu leen di wax it ne ñun ñoo nekkoon seeni xarit ñoo nekkoon seeni féete ci àdduna ak ci àllaaxira ci na am mbokk jullit mooy kiy bëgg malaaka yi malaaka yi bëgg ko moo tax sunu borom di wax man kaana aduwan lillahi wa malaikatihi wa jibril wa mikaal fa inna allaha aduwun lil kaafiriin ku noonu yàllaa ki malaakaam noonu jibril ak mikaayil yàlla sa noon la loolu it muy waññe ne jullit dañoo war a bëgg malaakay borom bi allahuma lu dul yahud yi bon yi ñoom nee nañ jibril seen noon la ndax day indi ay mbugal ak yu kenn xamul soo demee ci yenn chia yu sànq yi ñoom it dañoo contre jibril ndax nee nañ ci ali ibn abi talib ak yàlla yónni woon mu dem jox ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam loole da ngay gis ne réeru doomu aadama yegg na foofu su ko defee kon malaaka ñun ñun xamul leen ñu woon waaye ñun ñoo nekkoon seeni xarit te loolu it wax dëgg léeg-léeg muy bari dal doomu aadama nga dem ci benn place benn waay feeñu la dala man day yàgg naa la bëgg yàgg naa la sopp tey la yàlla mas a dogal ñu daje loole day am kon it malaaka yi naka noonu ñu ngi ci kaw asamaan di seetaan suuf di xam li fi xew xam jaami yàlla yi xam noonu yàlla yi lépp xam nañ ko ñoo nekkoon seeni xarit ca àdduna na ngeen bég ci tayit àllaaxira ji ñun ñoo fi nekk seeni seeni xarit su boobaa moog dañ leen di gis borom bi ne wal malaaikatu yadxuluuna alayhim min kulli baab salaamun aleykum bi ma sabartum fa nima uqba daar biir aljanna malaaka yi ñoo fay ñëw di leen félicité guddi ak bëccëg àjjana boobu suñu borom mu ne su ngeen demee lu ngeen xemmem am na fa fiiha ma tashtahi al anfus wa talazzu al ayun suñu borom nee na boo bëggee lu bégal boo bëggee lu bégal say bët fexeel ba dem aljanna borom bi it ne lu ngeen ñaan am ko àjjana mbokk lu nit ñaan yàlla defal ko ko ci saasi mi ngi noonu loo ñaan yàlla defal la ko ci saasi buñ demee sax am na lu gën a neex loolu mooy am na loo xam ne mënoo koon imaginer sunu borom yàlla dana la ko fe bette gu dégg bëccëg gu dégg bëccëg yàlla bette leen lu ñu mënul woon imaginer ba koy ñaan borom bi tuddee ko nuzulan min ghafurur rahim ak nganele la ca li tax mu tuddee nganele ngan la gu dul dakk xam ngeen doo am sa gan mu ñëw nga naan ko indi sa wàllu ci dépense bi allahuma la dul mbokki canadien yi xanaa sama mbokki ñoom asan lañ ko tuddee dañ lay invité ba pare bu ñu demee restaurant da ngeen di cotiser di ñuy fayee waaye bu dee ne li jukko yu rafet ci àdduna yépp sa gan moom yaa koy yor looloo tax àjjana kenn du fa liggéey mu teg témoin de Jéhovah yooyu di dugg suñu kër yi di nax suñu ndaw ñi dañ naan bu ñu demee yàlla day bàyyi nit ñi dañuy liggéey kenn du nax kenn kenn walaay dañuy fen àjjana kenn du liggéey ñépp ay buur la ñu doon iza raayta samma raayta naiman wa mulkan kabira ñépp buur la ñu doon mu nekk ak ngan ak daluwaay ñeel ñi nga xam ne dañuy neel ki nga xam ne mooy jéggalaate ca yërëmaate te loolu it day wane ne doomu aadama bi bu ko yàlla jéggalul woon buy xéewlu àjjana mën nam kersa ca bàkkaar yam def suñu borom mu ne jéggal naa leen gannaaw ba it yërëm naa leen ca mooy loolu du dakk ba faw borom bi bàyyi loolu waxaat it loolu ma nga suratul fussilat bu ñu demee suratul ahqaaf mu waxaat fa lu mel ni lii fii moom dane ñi nga xam ne dañ ne rabbuna allah suma suma staqaamu mu ne foofu it du ñu tiit ca du ñu tiisu ñii ñooy ñooñu àjjana ca dañ fay sax ba faw mu doon payu lañ nekkoon di ko jëf te lii mbokk juri dañuy gis ne bala ngaa wax rabbuna allah mu dëggu muy wér fokk loolee day doon loo xam ni benn day doon rabbuna allah ci aqida mooy nga gëm ne yàlla subhanahu wa taala moom dong nga ñu war a jaamu wara su ko bokkaaleeg dara su mastaqaama boobu it ñu fexe bañ koo bokkaale waaye istiqaama bi it day ëmb sa digganteeg sa boroom sa digganteeg ci la nga ko war a gëme ci ibaadaat yam la sant waaye li ñuy tudde muamalaat li ngay jëflanteeg doomu aadama it fokk istiqaama boobu feeñ ci doo naxaate doo sàcc doo riba doo kaza wa kaza loolee ngay gis ne fokk jullit bi bàyyi xel ci loolu mooy sax ci yoonu yàlla sunu borom mu ne ñii day àjjana lañ jëm moo doon payug lañ doon jëf mu doon payug lañ doon jëf doonte ne ni loolu daan ci ñëwaat ci kanam insha allah loolu mooy alquran amma buñ delloo ci xadis kii di saxaabi bi di sufyan ibnu abdullah nee na damaa ñëw ci yeneen bi alayhi salaam ni ko man daal dama bëgg nga wax ma wax joo xam ni danaa ko comprendre mën koo jëfe duma dem ci keneen di ko laaj yeneen bi na ko neel man gëm naa yàlla gannaaw ba nga daal di jub ci yoonu yàlla qul amantu billah mbokk amantu billah la ci yonent bi jublu du wax ji rek bu doon wax jee rek kon naafiq yi sax àjjana lañ jëm wa min annaas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil axir naafiq dañ koy wax kon qul amantu billah mooy na sax ci sa xol ne yow gëm nga yàlla ci ne mooy kenn ki ñu war a jaamu mooy ki moom lépp mooy borom tur yu kawe yeeg melokaan yu rafet yi mooy allah jalla wa ala amantu billah waaye ndax fa la yem gëm yàlla googu mooy da ngay gëmal yàlla am déet su ko defee da ngay gëm lu mu yónne ay yonentam gëm ay téeréem gëm lépp loo xam ne wax na ko wala ay yonentam wax ko loolu mooy gëm yàlla gëm yàlla gëmal yàlla amantu billah soo xisee ba am iman bi nag gannaaw ba nag su mustaqim nga doog a jóg loolu mu lay wan ne al istiqaama du mën a baax bu ko iman lalul waa ji bokkaale boromam kenn du ko jiitu ci jàkka ja moo ëpp lu muy génne azaka màkk moo fay jiitu weeru koor dana ko woor di naafila waaye mi ngi bokkaale boromam istiqaama boobu baaxul ndax fokk al imaanu saxiix mooy mën a lal jëf ju baax loolu tax mu ne ko qul amantu billah thumma istaqim gannaaw ba nag nga doog a doon koo xam ne nii kuy kuy kuy jëm nga gannaaw loolu su ko defee loolu mbokk mooy la yonente bi alayhi salatu wasalaam dégle loolu tax borom xam-xam yi dañ daan wax naan allahuma bika amanna farzuqna al istiqama comme yonente bi dana ko neel gëm naa yàlla gannaa bëgg a jub bu ko defee yow julit foo tollu dellu wax yàlla man day gëm naa la yàlla nag ma wërsëgal ak njub yàlla na yàlla defal ñu ko
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل رواه مسلم والمقاربه القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير والسداد الاستقامة والإصابة ويتغمدني يلبسني ويسترني قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى قالوا وهي من جوامع الكلم وهي نظام الأمور وبالله التوفيق
sunu ñaareelu xadis ci baabul istiqaama ki kay nettali mooy abi hurayra radiallahu anhu qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam qaaribu na ngeen jéem a jege pour jege sunna yonente bi wa saddidu la ngeen te xam ngeen jéem koo jubal wéeral ko waalamu an annahu lan yanjuwa ahadu minkum bi amali xam leen ne nag kenn ci yéen du mën a mucc ci mbëggalum yàlla ci ay jëfam rek muccal ko qaalu wala anta ya rasulallah ñu ne ko même yow yomu yonent yàlla yomu yàlla yónni qaala wala ana même man illa an yataxammadani illa an yataxammadani allahu bi rahmatin minhu wa fadl xanaa lu dul yàlla daal di may yiire ci yërmandeem ak i ngeneelam moom lay wax almuqaaraba alqasdu lazi la xulawa fihi wala taqsir jéem a jege boobu mooy jéem a digg doomu ci sunna bañ caa jéggi dayoo bañ caa gàttañlu wa sadaat mooy al istiqaamatu wal isaaba mooy jéem a jub jéem a dëppoo la nga xam ne mooy yoonu wax baax ba yataxammadiya nii mooy yulbisani wastura nii ay mooy yàlla solal la ay yàlla yiir la comme ni ko wolof di waxee yàlla yàlla yiir ci yërmandeem qaala al ulama maana al istiqaama luzumu taa taatillah istiqaama nag mooy sax ci topp yàlla bañ koy mooy qaalu wa hiya min jawaami al kalim ñu ne baat la boo xam ne day tënk lu bari bari mooy baat la bu boole lu bari te mooy buñ ne istiqaama rek day yóbbaale ngëm gu wóor xam-xam bu wóor jëf ju wóor ila axiri mooy wa hiya nizaamul umur wa billahi tawfiq ca mooy sa mbir yépp nga nose ko ci yàlla la ñuy ñaan ak dëppoo ala kulli xaal mbokk xadis bi it sorewul ak aaya bi lu dul ne yonent bi da ciy dolli ne qaaribu wa saddidu mooy saxaabatul kiram dañu uute ak ñun oto bu baax boo gis am na ñaar am na pédalu accélérateur ak pédalu frein saxaaba yee nag yonent bi di leen daan freiner ñun dañoo laaj ñu ñuy accélérer mais saxaaba yee dañ daan rey seen bopp ci jaamu yàlla yonent bi nag ne leen hey xaaribu fexe leen ngeen jéem a jege dëppook yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amma amul benn jullit bu mën a wax ne teg naa sama tànk correctement fa ko yonent bi tegoon yonent bi yàllaa ko sàmm mu bokk ci ulul azmi min rusul kon yow da ngay jéem a dëppook sunna sa kemtalal kattan te it bokk na lu yàlla dogal koo xam ne jeexal na sunna amut sahabatul kiram abou bakar li màgg-màgg am na lenn lu ko ci réeroon omar kaza wa kaza ba léegi leen mbir dana ne am ñu laaj yonent bi lu mu atte woon ci lii benn sahaaba ne ah man day fekk woon naa mu wax nangam ak i nangam kon xaaribu jéem leen jege sunna loolu muy wone ne buñ ci yokk buñ ci wàññi nañ fexe rek def la yonent bi doon def gars yi ji loolu la léegi lañ julli timis ñaata rakk lañ ko julli ñetti rakka su nekkoon ñaar ndax baax na ñeent nag baaxul kon xaariboo jëm leen def noonu lépp sunna yi noonu la mel gannaaw ba heure heure boo xamee nag ne lii sunna la sax ci mooy assadaat jéem a jub ca la nga xamee ne mooy say wax ak say jëf gannaaw ba nag ngeen dalal seen bopp bu leen rey seen bopp kenn ci yéen mënul jëf lu ko musal ci sawara soo demee ci beneen xadis day wane ne lan yadxul al jannata ahadukum bi amali kenn ci du dugg aljanna ci sa jëf kon lan moo ci des saxaaba yi ne même yow mi yàlla yónni sa jëf ji li muy bari bari du la du la dugal aljanna mu ne déedéet xanaa lu dul yàlla dolli ci yirma ak yirmandeem waa gars yi ay hadis bi nu muy def ak waa Sénégal waa Sénégal jàpp nañ ne sëñ Caam lu mu liggéey dañuy ñaan rek yàlla taasu ci barkeem moom waxuñu ay waxam waaye rek ta yàlla rek taas barkeem nag mën na ci taas un million ñu duggaloo aljan ndax lam liggéey kenn xamu ko fokk ñu dajee màggal liggéey bu réy bu mu liggéeyal yàlla loolu mbokk mbir la boo xam ne suñuy xel la nekk rek yàgg nañ koo wax ba mujj ko gëm sunu borom mu ne wa ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim amuñu ci xam-xam seeni baay amuñu ci xam-xam waaye mbokk amul kenn ku liggéey liggéey bu ko musal sawara abadan amul ku liggéey lu ko yóbbu aljanna nan nga ciy taasa keneen mi ngi noonu tey jii dañ ne stade baa nga ne paas bi ñaata la ñu ne dix mille la que ëppale lu mu indi mooy neuf mille waaw gars yi paas bi dix mille la nga daje ci waayu kaw ci bunte moom huit mille la yor wala sept mille nga ne ko sëñ bi mottali ma ma dugg mu ne la mottali ma man tamit man mottali ma àjjana kenn du fa am paas bu mat su ko defee mbokk loolu jullit ñi dañ koo war a xam mais malheureusement doomu aadama yi dugal ko seen bopp jàppane ndax rajo yeeg télévision yi ñu ngi noonu rajo yeeg télévision yi sañ du li mu liggéey nangam nangam dugg fii génn fii waaye yeneen ci bari sam mu ne ba man looloo tax taxaw na jàkkaarloog njabootam ay yéen waa Quraysh ay yéen waa Bani Hashim ay yow Fatima musal leen seen bopp ci sawara mënulu ma leen dara ci yàlla musul leen dégg xadis boobee kon di imam Sarr moo ko sos mi ngi ci téere yi leer naññi fexe leen liggéey lu leen yóbbu aljanna ca loolu mooy lan mooy jéem leen jëf lu baax jàng nañ ko sànq sunu borom ne jazaan bima kaanu ya'maluun lañ doon jëf mooy li la yàlla sant da nga ciy def sa kemtalal kattan soo ñëwee yàlla na waaw góor a waay xam naa day matuloo waaye nag comme def nga sa kemtalal kattan jéggal naa la yërëm naa la demal aljanna loolu la ñu war a ñaan yàlla na yàlla defal ñu loolu waaye yow sa mbir matul sëñ caam mbiram matul sëñ jóob mbiram matul nga ne léegi da ngay bàyyi sa jëf bàyyi yaakaar yàlla xanaa yaakaar yàlla taas la ci mbirum sëñ njaay loolu mbokk suñuy wax rek la nañ góor góor la jéem ci yee ku ñu mën ñu yee ko ci mbokk ëpp na nga jàpp ne am na benn doomu aadama bu defal yàlla loo xam ne ëpp na lam yaakaar ëllëg yowmal qiyaam ba man caa yóbbaale ndey wala doom waxuma ay taalibe wala ay dëkkandoo loolu suñuy xalaat la waaye maa anzala allahu biha min sultaan yàlla wu yàlla wàcce wu ca benn lay mi ngi noonu yal na yàlla dëpp la ñu yërmandeem ak ngëneelam
باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة قال الله تعالى إنما أعظكم بواحدة إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا سورة سبأ وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آل عمران وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر سورة الغاشية وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا سورة القتال والآيات في الباب كثيرة ومن الأحاديث الحديث السابق الكيس من دان نفسه
bokk bunt bi nga xam ne moo ci tegu mi ngi ko tuddee baabun fi tafakkuri fi azimi maxluqaati llahi taala bunt ci xalaat ci màggaayi mbindaafanu yàlla yi wa fanaai dunya wa ahwaali l axira ak àdduna gi nam nar a jeexe ak rëng-rëng yi mooy jafe-jafe yay xaaraata ci àllaaxira wa saaira umuuriha wa taq ak lépp la nga xam ne aju na ci biir àllaaxira wa taxsiri nafsi wa taxzibiha wa xamliha ala al istiqaama gannaaw ba it jéem a gàttal ñu ci bakkan jéem a cuub bakkan bi sellal ko yóbbu ko ba mu mën a sax ci yoonu yàlla loolu mu indi ci ay aaya yu bari aaya ba ca jëkk ca suratu saba sunu borom mu ne innama aizukum bi waaxida dama leen di xuppe ci benn mbir an taqumu lillahi masna wa furada yéen ñépp jóg leen taxaw ci yàlla tax ngeen doon ñaar wala kenn kenn su ma tatafakkaru gannaaw ba ngeen xalaat ñaareel bi mooy inna fi xalqi samawati wal ard nekk na ci ni ñi bind asamaan yi ak suuf waxtilaafi leyli wan nahaar ak guddeeg bëccëg ni mu wuutee la ayatin li ulil albaab ay kawtéefi ngi ci ñeel borom xel yi ca mooy allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ñi nga xam ne dañuy fàttaliku yàlla ci seen taxawaay seen toogaay ak ci seen wet wa yatafakkaruuna fi xalqi samawati wal ard ñu nekk di xalaat ci ni ñu binde asamaan yi ak suuf naan rabbana maa xalaqta hada batila subhanak ay yàlla li di bindoo ko ci neen sell ñeel na la ali imran ba ca tegu mu ne afala yanzuruuna ila al ibli kayfa xuliqat mu ndax nit ñi xanaa bàyyi wuñu xel giléem niñ ko binde wa ila samaai kayfa rufiat ak asamaan nañ ko yëkkatee wa ilal jibaali kayfa nusibat ak montagne nañ ko sampe wa ilal ardi kayfa sutihat ak suuf nañ ko tàllale fa zakkir innama anta muzakkir na nga waare nekkoo lu dul waaraatekat alxaashiya afala yasir ba ci mujj mooy afalam yasiru fi l ard fa yanzuru xanaa nit ñi doxuñu ci kaw suuf ñu daal di xool mu ne nag aaya ya rot ci loolu bari na wala ayaat fi lbaab kasira amma xadis alxadisu saabiq am na xadis boo xam ne jàngoon nañ ko ca gannaaw mooy alkayisu man daana nafsa kii xel lu dëgg mooy ki nga xam ne xisaab na boppam régle ko mi ngi noonu mbokk sunu boroom ñiy fekk tafsir bi gis nañu ay bi jàng nañ ko yàggul dara ci suratu saba sunu boroom subhanahu wa taala ni dama leen di sant ci li ma wax ci sama téere bi ak sunna yonent bi au lieu ngeen nekk ci mbooloo mi di coow polémique na ngeen wéet ñaar ñaar ngeen toog xalaat ci li muhammad di wax wala kenn ci dugg ci biir néegam toog xalaat ci li muhammad di wax te loolu mbokk tey naam yéefiri jëkkee ñàkkoon nañ ko mais jullit yi tey ñàkk nañ ko bokk na lu ñu yàlla nattoo muy la presse jullit ci tey amatuñu jotu xalaat ñeneen ña leen di xalaatal des tonnes d'informations rajo télé journaux rajo télé journaux lu ne ñu wax la ko loolee mbokk da ngay gis problème la da ngay gis ne boo demee ci yenn réew yi jëkk a développé yi jëkk am ay ordinateur ak internet lu mel ne États-Unis demoon nañ ba ñu ne xale yi mënatuñu waxtaan seen biir école ngay jógee ñoo connecté wu internet da ngay non yarhamukallah da ngay recevoir rek ay données amma jullit dafa war di wéet di xalaat ci lépp lu muy def lépp looy jëf war naa ndax xalaat xataa say julli heure booy julli nga xalaat lan mooy xikma julli bi maa ngi màggal sama boroom maa ngi sabbal sama boroom jullit ñu bëri bu ñu ko doon def këpp-këpp bi dana wàññeeku ki jàpp ne man sama yaram bi ak sama làmmiñ bi sama xol bi laa jagleel waxtu sama boroom ku mel noonu du këpp-këpp yi koor gi noonu zakat bi at gi lépp da nga war a xalaat lan mooy xikma bi nekk ci loolu looloo tax mi ngi noonu suñ boroom it gannaaw loolu mu ne xool leen ci ni ñu bind asamaan yi ak suuf jullit mën na ci xalaat xoolal asamaan jant bi xool ko ni nga koy gisee yaa ngi koy gis penku gis ko digg asamaan gis ko ci sowu xoolal li mu ànd ak tàngaay xoolal weer bi xoolal biddiw yi waaye boo paree xoolal li nga xam ne moo nekk ci kaw suuf garab yeeg picc yeeg njaa àll yi li ngay fi gis ba baa nga yéeg si sa bopp nga xool lii lépp da ngay gis ni ay kawtéef mi ngi ci loolu mooy li ñuy tuddee l'espace muy jaww ji mais même boo xoolee li ñuy tuddee le temps te lépp luy am ci loolu lay am dañ naan place sangam la amee wala waxtu sangam la awee amee suñu borom mu ne xoolal guddi ak bëccëg ni ñuy uute léeg-léeg wuuti nañu ci masalaan seen lëndëmaay guddi lëndëm bëccëg leer seen tàngaay bëccëg tàng guddi sedd naka noonu itamit la nga xamee ne yeccay xew sunu borom mu ne wa tilkal ayyaam nu daawiluha bayna naas da ngay gis nawet bi baax nawet bi bon lii di jamonoy guerre lii di jamonoy jàmm ila axiri kon loolu day am uute bu rëy ci diggante guddi gi ak bëccëg kan moo koy def muy sunu borom naka noonu seen guddaay rawatina tey comme niñ ko yàgg a waxee boo demoon ci dëkk Europe yéeg yi dama noonu léeg-léeg guddi gi lekk bëccëg ñeenti waxtu léeg-léeg bëccëg lekk guddi ñeenti waxtu ba baa ngay dem ci extrême pôle yi nga xam ne bii day nekk 6 mois bi nekk 6 mois loolu lépp suñu borom mu ne jullit ñi nga xam ne boroomi xel lañu ñoom day dañ ci nekk di ca xalaat te mbokk borom xel ci lislaam nekkul ak li ñuy tudd ko muus am na waaju muus yoo xam ne comme jëflante rek mën na laa nax waaye ki am xel mooy ki xelam yee bam mën a jëfe li taxoon yàlla indi ko ci kaw suuf bam mën a jëfe li koy jëriñ tey di ko jëriñ ëllëg amma ki nga xam ne mi ngi dajale ay koppar rek ay dërëm dajale nguur dajale kaza wa kaza loo xam ne lépp da ko fi bàyyi kooku mbokk muusul de tax suñu borom ne albaab mooy borom xel yu ñor yi ñooñu dañuy xalaat ci asamaan ak suuf naan yàlla lii de bindoo ko ci neen waaye fi mu ne boo gisoon ko nañ Dakar am na ñoo xam boo ko laajoon kañ nga gëjee xool biddiw yi danaa lu ndax mas naa xool biddiw sax tàlluñu dooru parce que ñu ngi ci biir immobilier télévision yeeg yooyu xamuñ yooyu sax mi ngi noonu heure boo génnee li nit defar ngay gis ay tali ay pont ay feu rouge kaza wa kaza suñu borom yàlla nag ne jullit ñoom dañuy xalaat naan yàlla lii day bindoo ko ci neen sell ñeel na la ca na am mbokk suñu borom mu ne bindu ma asamaan ak suuf ci neen kon lu tax yàlla bind ko mooy yàlla da koo bind ngir wane kattanam yow yàlla bind la pour nga jaamu ko mu won leen ne lu mu digg mën na ko jàlla wa ala maa xalaqta hada batila bindoo leen ci nen ca mbokk yàlla loo xool rek gis ci kawtéefam wa fi kullin lahu aaya tadullu ala annahu lwaxid loo gis rek mën nga caa gis kattanu yàlla loolu ñu bàyyi ci xel bu baax looloo tax yéefir yi sànq yi di wax waaye muhammad nga defa ni muy wax yàlla ko ko waxloo kii di wax alxuraan yi ci tudd ay weñ aki ay yooki kaza wa kaza suñu borom mu ne man rusuma dóor misaal ci yow waaye ñun ñu tombeeg siècle yi xam nañ yàlla rusul dóor misaal ci yow ndax tey li yoo di rey ci kaw suuf bombe atomique yi gaynde yeeg ña yépp réew ni rey reyuñu ko loolee kon mbokk mi ngi noonu sunu borom it subhanahu wa taala dogal na aaya yi ba baa ali imran di jeex di fukki aaya yenent bi bu masaan yeewu balaa dem di naafila daana ko jàng ku ko mañit nga def ko heure bu masaan yeewu aaya yi lay jëkk a jàng mooy inna fi xalqi samawati wal ard mi ngi noonu xool asamaan jàng aaya yi lii ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi subhanahu wa taala it mi ngi naan xanaa nit ñi bàyyi wuñu xel giléem ni mu ko bindee doyoon na waxtaan rek spécial ci kawtiif yi nga xam ne borom xam-xam yi mujj nañ ko gis ci giléem mi ngi noonu ci ni ko yàlla bindee waaye mi boobul xam-xam xool ko ni mu rëy rek xoolal tànkam yooyu ni mu guddee yàlla may ko mu dund ci désert bi giléem mën na toog lu jege ñaari weer du naan gis ngeen giléem da ngay gis ne yàlla mën na ko may mu toog presque lu jege weer boo xam ni nii du lekk te du tey day am résistance yàlla may ko mu mën a dox ci kaw montagne yi day pompe tànk yi ba mel ni yow mi pompe sa pëna su demee ci beeñ bi daal di koy daal di koy jël nooyal ko ba mu nooy nepp yooyu yépp ay kawteef yoo xam ne nii même boo duggee ci ay internet yi da ngay gis ay documentaire yu ñu lay wan ci kawteefu giléem sunu borom ni mu ko defaree ay bëtam. bay day mën a dox ci biir poussière bu fort ci désert Sahara bi mais dafa mel ne benn toile bu ko yàlla defal boo xam ne muy muur bët bi poussière bi même buy dal du ko tee moom mi ngi gis kawteef yu rëy rëy yu dul jeex xanaa nit ñi xooluñu gëléem ni ko yàlla bindee mi ngi noonu xanaa xooluñu li nga xame ne nii mooy asamaan ne ko yàlla yëkkatee na am asamaan a ngi ni tiim ñu mbokk jant baa ngi ñu tiim weer baa ngi ñu tiim loolu lépp nekk ay matière yoo xam ne nii tubaab yi calculer lu nekk kenn xamul ay milliards de tonnes la ba tey daanuwul suñ kaw yàlla subhanahu wa taala moo ko yëkkati yi moo ko téye xanaa xooluñu li nga xam ne mooy montagnes yi ni ko yàlla sampe ay montagnes yu def huit kilomètres ay montagnes yu def cinq six kilomètres wër suñu borom samp ko mu dëgër këng xanaa xooluñu li nga xam ne mooy suuf bi ni ko yàlla tàllale gars yi bu doon yàlla dafa def suuf comme ndox ndax dañoom fu ñu samp suñuy bâtiment la wallah mais su ko yàlla defoon comme acier ndax daan ci mën a bàyyi tool ndax daan ci mën a def dara déedéet mais gis ni ko yàlla woyefale woyefulu ko comme ndox mais dëgëru ko gone gu ndaw bu jëloon appel la mën naa gas fii léegi suul la bëgg a suul yàlla yaatal ko tallal ko nit ñi di ci mën a déplacé wu ay centaine de kilomètres yoo xam ne ni doo dajeeg lu la baare yii yépp mbokk da ngay gis ne xéewalu borom bi la subhanahu wa taala moo tax mu ne yonente bi alayhi salaam waareel ah dara warula lu dul waare rek mi ngi noonu aaya bi ci mujj mooy sunu borom dina xanaa nit ñi doxuñu ci kaw suuf te dox ci kaw suuf ñaari doxin la te mooy dox ci kaw suuf ci sa tànk mooy ba ci gën a mattale heure boo demee cim réew xam fa loo xam ne xamoo ko woon mi ngi noonu xam fa loo xam ne xamoo ko woon waaye it nit ki mën nay dox ci xolam ca mooy di déglu li xewoon tey ñun demuñu Égypte mais xam nañ dafa Firaw na defoon ak Moussa demuñu fële nga xamee ne mooy Makka waaye xam nañ ci li ma wax rek jamono ya yàlla di yónni yonent yi foofu waaye yàlla won nañu la ko yonent yi tontu woon ca mooy dox ak sa xol ci kaw suuf mi ngi noonu ca it bokk na yéen ndaw ñi dox bi gën a baax ci dox yi mooy tiim téere yi di jàng nga noonu mooy tiire téere di jàng ñoo lay won histoire yi fi jaaroon ñoo lay wan dëkk sàngam nii la tëddee ba tey boo demee ci téere yi dañ la mën a wan France nii la mel ah nangami dëkk fa am buur sàngam a ko jiite woon kaza wa kaza loolu lépp yomb na donte ne téere bi gën a complété muy internet ak la ci nekk ci xéewal ak la ci nekk ci ay musiba mi ngi noonu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax kon mbokk sunu boroom na am bëgg na jaam yépp jaamu ko waaye daa bëgg jaamu gi ñu boole ci cafeel ak mbëggeel ak nangul ko moo tax mu bëgg ñu jëfandikoo suñuy xel ci loolu loolu itamit mooy zikrullah bi gën a mag mbokk mooy zikr bu ànd ak làmmiñ ak xol ñetti façon zikr am ngay tudd yàlla ci sa làmmiñ kese fekk sa xol ma ngay xalaat magasin ya nga bàyyeeg wala sa gerte ga nga doon jaay loolu it teewul baax na ma yaa ngi tudd yàlla donte ne sa xel a ngi ci neneen mais quand même même làmmiñ baa ngi tudd yàlla rek yonent bi alayhi salaam waxoon na benn waay wala yazaalu lisaanuka ratban min zikrillah fexeel ba sa làmmiñ ba mu deñ di tooy toujours ci zikrullah waaye zikr ba nga xamee ni nii moo ca topp mooy ngay tudd yàlla sa xol même bu dee waxuloo ngay toog di xalaat màggaayu yàlla kawtee fi yàlla zikr boobu moo gën a màgg zikru làmmiñ amma nag zikr bi gën a matale mooy nga boole xol bi ak làmmiñ bi nga naan subhanallah yaa ngi yëg màggaayu yàlla sellug yàlla alhamdulillah yaa ngi yëg xiiwali yàlla def ci ay jaamam allahu akbar yaa ngi yëg ne yàlla mooy ki màgg ki moom lépp bi ñu lépp kaza wa kaza la hawla wala quwwata illa billah yaa ngi yëg ne kattan ak pexe yàlla rek ko moom ila axiri loolu mooy zikr bi gën a mat ci zikr yi mi ngi noonu amma xadis bi nga xam ne moom la ko tëjee jàngoon nañ ko ca gannaaw moo tax mu ne alxadisu saabiq ca yeneen bi alei salaam dane ki yeewu ci nit ñi mooy kan wax nañ sànq borom xel kan mooy ki am xel ndax mooy ki dajale ay immeuble ndax mooy ki jàng ba am ay doctorat laa ki am xel ci yàlla mooy ki xa ki ki xisaab bakkanam xool la neex yàlla mu dëppale ko bakkanam xool la naqari yàlla mu bàyyi ko fa moo tax xadis mi nañ ko jànge woon mooy alkayisu man daana nafsahu wa amila lima baada al mawt mooy ki xisaab boppam bay liggéeyal gannaaw de wal aajizu man atbaa nafsahu hawaaha wa yatamanna ala allahi al amani amma waa ji sànku nag mooy ki topp bànneexu bakkanam ba pare ah yàlla baax na yàlla dinañu jéggal waay ah yàlla dinañu yërëm waay mi ngi noonu
wa hatti man tawajjaha li xayrin ala al iqbaali alayhi fi ljiddi min gayri taraddud قال الله تعالى استبقوا الخيرات سورة البقرة وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين آل عمران عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم
bunt bi ci tegu mooy fukkeelu bunt ci téere bi mi ngi ko tuddee baabun fi lmubaadarati ila alxayraat bunt la ci jëkkante gaawee jëm ci aw yiw wa xassu min tawajjuhi li li xayr ala aliqbaal alayhi biljidd min geyri taraddud ak ñaaxaatee ci jublu ci yiw ci jublu ci ci ak dogu loo xam ne du ànd ak benn dengi-dengi ay looy xalaat la nga xamee ne mooy la lam ci indi ci kàddu borom bi subhanahu wa taala mooy la sunu borom ne fastabiqul xayraat ay yéen jullit ñi jëkkante leen ci aw yiw borom bi waxaat it wa saari'u ila maghfirati min rabbikum jëkkante leen jëm ci seen njégalu borom wa jannatin arduha as-samawatu wal ard ak àjjana joo xam ne yaatuwaayam ba mooy asamaan yaak suuf uiddat lil muttaqin ña ngi ko waajal ña ragaloon yàlla bu dee xadis yam ca indi ba ca jiitu an abi hurayrata radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam baadiru bil a'maali fitana ngalawaay na ngeen jëkkante mooy gaawee ci jëf yi balaa benn fitna di ñëw fitanan ka qita'i laylil muslim boo xam ne dana mel ni dogetu guddi bu lëndëm këriis yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kaafira da ngay gis xëy nekk jullit bu gëm yàlla balaa ngoon mu nekk yéeféer wa yumsi mu'minan wa yusbihu kaafira da ngay gis koo xam ne ci ngoon jullit la woon balaa subaa mu nekk yéeféer yabi'u diinahu bi aradin min ad-dunya ndax day jaay diineem ci lu ñu gaar ci mattum àdduna rek mi ngi noonu mbokk sunu boroom def ne lépp luy yiw nga la waay jëkkante leen ci fastabiqul xayraat jëkkante leen ci aw yiw te it yàlla moo bind doomu aadama mu bëgg rawante boo sañoon jamono ji ngay dund kenn du la dàq kër kenn du la dàq woto kenn du la dàq mbubb kaza wa kaza nooñu jaamu yàlla yi loolu lañ ci war a jëkkante doomu aadama war na fexe ba ci góorgóorlu kenn du ko jiitu ci lu baax masalan julli gi ñuy julli jëkkanteel sàppe bu jëkk loolu lañ ko war a jëkkante yonent bi alayhi salaam nee na bu ñu xamoon li ci nekk doon nañ ko sax lu turi ci ba baa jaamu yàlla yi jeex lépp lu baax jëkkante leen ci sunu boroom mi ngi ne waa àjjana ñoom ñoo fay dugg mu ne jëkkante leen jëm ci seen njéggalu boroom lu leen jural njéggalug yàlla ca loolu mbokk mooy mboolem tuyaaba amul lépp looy def lu du rek day far say bakkaar julli gi ba baa julli day far bakkaar yi ajjuma ba ajjuma njàpp bi ngay jàpp weeru koor ba weeru koor aj makka ila axiri mooy lépp looy def day far say bakkaar waaye da lay yóbbu aljanna ajjana boobu sunu borom ne yaatuwaayam mi ngi mel ne yaatuwaayu asamaan yi ak suuf yàlla waxuñu nam guddee ca loo gis dafay am yaatuwaay guddaay mi ngi mel ne asamaan yi ak suuf ca la chaque gën na gudd gën na yaatu asamaan yi ak suuf sunu borom mu ne kan la ko waajal mooy ñi ragaloon yàlla rek at taqwa donte ne almuttaqin soo delloo ci al imran comme ni ñu ko doon jàngee ci timis suñu borom yaatal na ko mooy ñi nga xam ne dañuy dépenser bu ñu amee ak bu ñu woomle ñi nga xam ne dañuy nëbb seen mer ñi nga xam ne dañuy baal nit ñi ñi nga xam ne dañuy rafetal ñi nga xam ne bu ñu defee ak njuumte dañuy gaaw tuub dellu ci yàlla ñi nga xam ne bu ñu xisee ba xam lii ñu nekk baaxul dañ koy daal di bàyyi suñu borom mu ne ñu mel nii dinaa leen jéggal tabbaleen aljanna yàlla na yàlla boole ñu ci ñooñu ama xadis bi ci tegu yonent bi alayhi salaam def ne ngalawaay jëkkante leen ci jëf yu baax balaa fitna mi ngi ñëw sama kanam mbokk jëf ju baax mooy lan mooy jëf joo xam ne yàllaa tax nga koy def te daa dëppoog sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bu dee yàlla taxut baaxut bu dëppoowul ak sunna baaxut mi ngi noonu loolu nag balaa fitna di ñëw boo xam ne bu tar la fitna boobu dana nekk ñaar ba ca gën a garaaw mooy li ñu tuddee fitnatu shubuhaat mooy fitna ci diina ju lënt nit ñi xamatuñu fu ñu jëm ku nekk woote ci yoon woo xam ne dafa safaanoog sunna gars yi loolu ñu ngi koy dund léegi koy dund léegi wallahi ñu bari luy metti xol dañuy gis ay ñu ñu sincère mais malheureusement xamuñu nu ñuy jaamoo yàlla détourné nañ leen ah fi ñu toogoon sànq rek am na ko fa doon nettali fële ca Italie benn kilifa diine bu fa ñëw ne gars yi waaw na ko ne indi 500 euros gars yi indi 500 euros mi ngi toogoon ak koo xam ne moom bokkul ca gaaya mu ne ah ñii de comme loo leen teg ñu toogoo moom loo leen teg rek dagan na gis ngeen ñooñu nga xam ne ak na dëkk ba méttee ñoo jël 500 euros ñëw di ko joxe dañoo jàpp ne lii ngërëmal yàlla mi ngi ci loolu mi ngi noonu. loolu mu ngi noonu mooy détourné nit ñi ci loo xam ne lu lënt la amma beneen fitna bi it ca bu tasaaroo la mooy li ñu tuddee fitnatu shahawaat mooy bànneexu bakkan moo ko bari na léegi lool bi presse bi tasaaroo film yi ak télévision yi li mën a bànneexal nit njaaloo yomb na lool gis ngeen li nga xam ne mi ngi raam suñu ñag bi ci wàllu góor jigéen gi nga xam ne lu bari nit ñi ñu ngi koy toléré li nga xam ne moo am ci carte gi tasaaroo léegi ñu taaral ko tudd ko pays mi tudd ko lu nekk la nga xamee ne moo tasaaroo ci sangara bi yooyu yépp mbokk day doon fitna bay mujj nekk lëndam lu tax mooy dañuy dem ba kenn du ñemeeti wax li baaxul yi ngi noonu fi mu ne am na événement yu xew suñu réew mi mbooloo yu bëri boo taxawoon ne lii ngërëm ngërëmal yàlla nekku ci soo moytuwul ñu rey la sax ndax da ngay mel ne ku naan alxuraan du dëgg lu tax ndax mbir bi yàgg na fi tasaaroo na ci bopp nit ñi ñépp wax nañ ci taaral nañ ko ba soo ko doon critiquer da ngay mel ne ko naan waxtu juróom du dëgg loolu nag mbokk mooy fitnatu shubuhaat mi ngi noonu ak la nga xam ne moo ci nekk su ko defee kon jullit war a moytu moytu addunaa ki bànnee xam yonent bi alayhi salaam danañu wax moytu leen jigéen ittaqu dunya wattaqu nisa fitna bi gën a rëy mooy fitnay jigéen fitnay alal fitna yi bëgg a siiw ci wàllu politique fitna fitna fitna ba yonent bi alayhi salaam ne na balaa addunaa tukki da ngay gis jullit boo xam ne day xëy nekk jullit balaa ngoon mu nekk yéeféer koo xam ne biig ci ngoon yee jullit la woon xëy suba rek nekk yéeféer lu tax day jaay diineem ci lenn lu ñu gaaral ci àdduna loolu mën na nekk alal mën na nekk jigéen mën na nekk ak pal mën na nekk lu nekk loo xam ni am na koo xam ne tey falu jaral na ko rey bakkan suul ko am déet lay am na mi ngi noonu am na koo xam ne ni am alal jaral na ko lu nekk am na koo xam ne jot ci ndaw su rafet si jaral na ko lu nekk loolu kon lu néew ci àdduna lay jaaye diineem ca pourtant jurit la woon loolu it mbokk muy wane ne ñépp waroon a sàmm seen pas-pas ca jamono yonent bi waaye nag rawatina ñun ñi nga xam ne ñooy dund suñ jamonoy tey jii yaakaar nañ ne mbokk comme waxtu bi yegg si ne nii dañuy yeme di fii bàyyi bilaal noddal ñu insha allah ñu jël ci lenn ci bu dee am na ci ay laaj wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad